su mesure boo ko mayee fukk mu jël juróom jël juróom ya ca des doxale ko ci digganteem ak boromam ba xam naka la ciy def waaye ku ñu jox fukk nga jël fukk doo nit waaw ku ñu jox fukk nga jël fukk doo nit waaw moo tax moom nitu mesure la woon loolu tax ni bu leen jéggi àddina waaw su ko defee ci biir loolu moom dafa sex ween rek ñu commencé di koy yar moom yonent bi dafa sex ween rekk ñu commencé di ko yar ba mu fer ñu commencé di ko yar ba mu dëgër ñu commencé di ko yar ba mu mat góor commencé di ko yar ba mu mën a liggéey ñu commencé di ko yar ba mu xëy am ñeent fukki at suñu borom soxla ko pour yónni ko ci nit ñi commencé yar ba ñu ko yaroon ñu ni moo baax moo ormal mag moo tabi moo teey moo mel nii moo mel na sunu borom commencé moom di rocc jikko yooyu par benn di sànni di rocc jikko yooyu di sànni ndax amu ci benn bu tegu ci xaqiqa yépp ci aada tëdd benn par benn ñu ni moo fonk mag sunu borom ni ko fonk fonkadil mag te mënu ko mënu ko ndax fonk mag dafa jaxasoog deretam waaw fonk mag dafa jaxasoog deretam sunu borom ni ko fonkatil mag parce que mag mu ma weddi jarul ñu di ko wet waaw mënu ko mënu ko ndax ku nekk ak la nga mën ndax mag ñépp ay waajuram lañu te ku ci ne sa pexe dafa bare waaw ndax danga koy teg ci rekk aada te dafay gaaw a bare su ko defee sunu borom di ko surveiller pour ñu dindi ji ko caaxaan yépp ndax jikko aada yépp lu mu baax baax jikko caaxaan moo baax ak moo moo teey ak moo mel néeg moo fonk mag ñeeg dara du ci dëkk tappale rek jikko aada yépp jikko tappale la tappale tappale tappale waaw seetal lu gën a metti lool ñeen fukki at nga dund ko li ñu saxal ci yow ñu ni daañu ko dindi ba mu set ndax itam cohabitation mënul nekk ci ñaari jikko jikko bi xaqiqa jur ak jikko bi aada jur cohabitation mënul ci nekk sunu boroom du ko nangu waaw moo tax mu yulli yépp bu ko nee saagal mag ñi mu bañ du ko mën du ko man te bu leen saagawul du leen ñeme te bu leen ñemewul du jàll bu ko defee sunu borom it comprendre ko jël saaga ba ci place saaga mag ñi ba ñu tooy xep xam nga ko yàlla saagaal ku waa moo tax dafay saaga mag ñi ba ñu tooy xep xep bu ko defee mag ñëpp jóg du ñu xam fu mu ne pour fa yu ji ñu yem ci yonent bi rek saaga ko ba mu tooy xep loolu de moo xew loolu de moo xew bu ko defee moom ñaari coono yépp wàcc ci boppam waaw amul fu mu jëm waaw ndax ñi ko yar bàyyi nañu ko te yàlla nga ko taxaw bu deful li mu wax rek parce que yàlla soxlawul otage acteur la soxla waaw te aada otage lay joxe mais du joxe acteur waaw loolu mooy li ci ne ndax bu la bàjjen yaree ak tante ak nijaay ak bay tax ñu ngi wut ci yow lu ñu la moomee te bu ñu la moomee rek ngay seen otage waaw te ku nekk otage yu bàjjen ak tante ak nijaay nekk otage yu société te ku nekk otage yu société société di sa otage dara mën mën ko dindi waaw moo tax suñu borom bañ loolu bañ ko di ko dindi par benn bañ ko di ko bind par benn bu ko nee saagal mag ñi ñu bañ moom mu taxaw saagalee waaw bu ko defee moom la Maodo junj ni ah wax dëgg yàlla min baadi sabbin waaw min baadi sabbin wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfawu min idami waaw pexe amul parce que yàlla leen saaga te gisuñu ko kon nag yonent bi rek la ñu mën a saaga waaw ñu saaga ko ba mu tooy xet waaw ba tax na mën nañ ci jële ni nañu wattandiku suñu najaay yi nañu wattandiku suñu bàyyi tëx yi nañu wattandiku suñu tànt yi ak suñu bàjjeen yi ci wàllu aada réew mi aada lekk na ko ba mu jeex takk leneen amul ba noppi nag koo gis mu ni la maa gën a yey ci yàlla ndax maa ngi ci diine ci mais loolu taxul nga nekk ci diine mënul nekk mënul nekk ndax itam sunu borom dafa xund xund bi mu xund mu jaare la ko ci làmmiñu yonent bi ni ko wéy jur yi ñoo ma xañ doom yi bii yoon waxul ak doom yi de wéy jur yi la wax ni ñoo ko xañ doom yi waaw sunu borom moom mer nag am procès ak chef de famille wax ni kullu mawluud يولد على الفطرة السليمة ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجزانه لأن كج درك سلنغ بمن غي وتيل 100% لأن وي جوري نيوي تريشي نان لي يو جويف نغ تمن واخوما ني يو جويف نغ نيوم نيوكو دي دوغال اي بخي naan le lii la Moussa wax wala lii la Tawraat wax te dara du ci dëgg dana bu ko defee ba nañ laa bàyyi boo matee góor bu ma amee ci yow 30 pour cent sax bare na nee na walla ñu ni la chrétien nga ni la lii la Isaa bëgg wala lii la Injil bëgg bu ko defee di la nax di dugal ay aada ci turu euh, euh, Injil di dugal ay aada ci turu Isa ba nga xëy cent pour cent yi ma amoon ci yow ma ñàkk ko bu baree ba bare ma am trente pour cent loolu la wax mu ni itam même animiste yi ci boobu situation la ñu nekk te kenn xamul lu tax mu boole ci animiste yi te reconnaîtreul animisme foofu la affaire bi nekk ñu ni lu tax loolu ñu ni parce que dafa bëgg a rawale li ñuy tuddee la dignité humaine waaye du càggi ni dafa cité diine bu mu nanguwul ni am na du càggi ni daf ko daf ko cité pour nangu ni am na déedéet waaye la dignité humaine moo nanguwul di jaamu garab waaw nanguwoo ko wax naa ko fi at ñu saaga ma ba ma tooy waaw te dama waxoon duma ci génn waaw ñu dema dem ba parti bi di ma tontu parti Senghor Senghor ni may santaane wu ma ko de ma ni ko xam naa ko parce que ki ko doon weddi ma ni ko déggul tubaab déggul wolof ma ni ko loolu moo ci nekk wante la ma waxoon ayu dama wax ni guy du yàlla ba ñu di ko jaamu ma ni may maydo du yàlla ba ñu di ko jaamu ma ni dex du yàlla ba ñu di ko jàmm ma ni bu ci nekk nag man nga ko jariñoo xam ni mbindeef la waaye du tax nag nga jàppe ko yàgg dem nañ ci ba léeg-léeg nit dessiné guy ñëw taf ko ci sama buntu kër ndax provocation rek ma xam ni Sénégal mel noonu ñoom dañu xaw tuuti du ñu janoog yow mu wax ak yow waaw dañu lay gannaaw waaw toujours nag noonu la ñuy waaw moo tax bu ñu nee croyant la ñu kenn du ko gëm waaw kenn du ko gëm ndax Serigne Babacar nee na même yàlla seen bakkan lañuy topp ci yàlla waaye yàlla ci boppam duñ ko topp waaw loolu te lu jafe la nit xàmme ko xam ni yow mii sa bakkan nga topp ci sa sëriñ toppaloo sa sëriñ sa bakkan nga topp ci yàlla waaye toppaloo yàlla waaw loolu lu jafe xàmme la waaw loolu lu jafe xàmme la moo tax daan na wax ni nee na seytaane li mu dajale ci yool ne kenn xamul na mu toll séddale na ci doomam yi ba ñu doyal li ci des xamul nu mu koy def xam nga fu mu ko jële ci nit ñi naan audu billahi